yalla daf ma dimbale daf may basir damay gis luy ñew combat Balla gay at euh, Bombardier man may mara bu taxoon ne Balla gay ne def attention ci diggante mom at Bombardier ndax bu fekke deful attention fu ko Bombardier dencion deñugul dina am ci combat bo defet loolu mu ngi ci réseaux sociaux yi dem leen ngeen xoliko ñu jógeeti fofu ma gis ne yàqu-yàqu bi top nako mo ne yàq nañ ko yàq boo xam ne bu jógul ci wàllu mystique dina am jafe-jafe ci combat mi di ñëw na gaaw defar ay ñaan ci bu jëmmam ji combat Eumeu Sène taxaw ma ne Eumeu Sène dina daan Bombardier ndax Eumeu seen moo gën a taxaw Bombardier ci wàllu mystique ba combat Balla Gaye taxawaatee at Gris Bordeaux yàlla def yàlla wanaat ma fi ne maanaam Balla Gaye liñ ko defoon ci wàllu mystique am na sëriñ bu nekk Casamance yàlla def na dindi na ko te boo leen demee ba ci stade bi di ngeen gis la taxaw ci lu mel ni ban sotteeku benn garab te loolu ñëpp seetaan nañ ko man maa ko feexoon ne bu soobee yàlla gàllaaj boobu bu fekkee def na ko moom combat bi mooy am ndam te dina ko daan mystiquement te ku baax ku ku xool combat yoo xam ne. Balla Gaye gagné na mystiquement mais gagné ci leen lu ci mystique mystique boobu la ëppalee gris moo tax mu daan ko mu daan ko mooy. il faut me préparer mystiquement. ci combat parce que man gis que bu mystiquement sot soto dana am ci walu mystique yo xamné buñ ko buñ si je ko condamne, daan muy muy muy muy muy muy je suis défaite bu ko a ci bu ma def ay ko moo ko ko defaree kenn du ko mën a téye ci wàllu mystique man maa lancé woon alerte boobu loolu daw na ci réseau yi ba képp ku jege ñaale euh, maanaam Balla Gaye mu mooy woo pour def accès comme ni ma ko defoon ci coupe d' Afrique bi waxoon ne bu ma fédération woowee dinaa fexe ba coupe d' ñëw pour la première fois noonu ñu defoon ay jéeg ba ma taar ba woo ma ñu bëri ci ñu jege Balla ñu may woo pour bu ko def bi waaye incha allah bu ko yàlla naree man may nam dina ma jege ci te boobaa du alal du dara naa ko jàppale ba ñaari combat yi mu am ci ndam jërëjëf. sëñ bi gis nga Modou Lo bu mystique la dañ def attention Modou Lo bu am mystique la combat Modou Lo ak boobu bu yàlla dogaloon mu am Ama Baldé mooy daan Modou Lô man asbra maax loolu loolu gisoon naa ko bu yàgg mi tax ma ne la Modou Lô dafa am mystique combat bi ni mu gënoon di dem rek dama doon gis ne Ama jekk woon na mais mystique at ñaan at xuddam bu dëgër boo xam ne ay sëriñ ñoo ngi ko wër ci ci ci ci moo tax combat boobu yàqu te gis naa ne heure bu combat bi amaatee ci diggante Modou Lô Ama gis naa ne Modou Lo mystiquement dana pare te boobaa dana métti lool seen diggante moo waraloon première fois bi Ama da ko jekkoon te fii ñu toll nii ci jamono jamonoy xuddaam ci li may gis si mbër yi Ama mbër bu ne na ko moytu wax na ko moytu parce que xuddaamam moo gën a yéeg ci jamono ji ci mbër yëpp te ku ci moytuwul dina la daan lii man maa la ko ah fii ma toll nii li li ma yàlla wan nii nii nii actuellement nii buñ deful attention ci ci ama jamono jii kum ci bëreel na la daan fii ñu toll nii xaabu nag bu demee ba jege bu demee ba jege man dinaa xool combat ndax doo ko teel a wax heure bi da ngay ba mu jege mais diggante Modou Lo bi ba fii mu toll nii xuddaamu ana ama moo gën a yéeg kaw ci yeneen xuddaam bëri te gis naa ne xuddaam boobu bu ko bu ko continuer te gisuma dara loo xam ne yàq na ko kum jàkkaarloo si mbëri na la daan jërëjëf. Euh, sëñ bi waaw waaw dëgg la dëgg la euh, yàlla mooy wax ci alxuraan ne euh, wa min xalaat naa xalaqnaa zawjayni lépp loo gis rek yàlla moo ko dogal gis nga mbokk képp boo ci wax na nga ci wax lu luy jàmm dañoo ne ci jamono joo xam ne ku daw ànd ak yow yow doo ànd ak sa mbokk te xale boobu di woy dafa ñàkk papaam yàggul waay waaye waay nit ñi nit ñi bàyyi xel ne biiru mbokk na ci nit ñi di génn euh, papaam la am na droit wax lu ko neex mais bu ci nit ñi jël di focaliser di wax loo xam ne du kii gisa waal yi li ma koy conseillé euh, képp koo xam ne mu ngi naan la bu sama baay newoon ci dëkk jamono ma defal la nangam rakku papaam dund def ko comme ni nga def sa baay te xam naa ne xale bu yaru la ku baax la mu ngi topp tànk yooyu amaana doomu aadama dina dem ba toll foo xam ne ci àddinaam jot gi da dul bëreeti loolu daf ma dal dal keneen ak keneen il faut ñoom ñi nga xam ne ñooy ay baayam ñu bàyyi ko xel tuuti tamit comprendre ko xam ne dafa nekk ci ay contrat yoo xam ne contrat jàmbur la te ay milam dafa chargé wu loolu kese la mais incha allah dañuy juboo incha allah jërëjëf. alhamdulillah ñu ngi sant yalla xam nga suñ borom mo yor xaybu waaye yalla dogal na ne mbiram yi jël na ci lu ko neex jox ko ci ko neex man dama fa yem loowul at adina bi gis-gis at kep kuy serign ci adina bi parce que man lepp lu ma len wax rek bu la xey tek sen bop pap job ma ñak wax ne dinañ gis ben politicien bu election yi passé dina daw fekk ji benn bokk yaakaar mako ko te gis nga ku baax politique du ëmb waaye heure bu xëy rek mën naa wasin à tout moment surprise madame ci politique te waxoon naa ne élection yi passé maanaam surprise dana am ba pare dina seere kooku man may marab bu ko waxoon fro ni xale yëpp a ko yëpp TikTok ku weddi loolu demal nga dem TikTok TikTok nga xool demal ci réseaux sociaux yi nga xool maa xool lu dina seere lool te ku gis affaire bi nga xam ne seere na surprise mooy député benn boo ko yaakaar amoon gis nañ ne wàcc na ba xam ne ñoom gagné nañ majorité waaye boo xoolee ni nit ñu ak gagné woon gagné bu njëkk ba at bokk na loolu surprise la moo wax ne si parti politique yi ngeen di gis muy mu ñu nekk di ngeen gisaat ñeneen ñoo xam ne danañ jóge ko ci opposition bi dawat ci benn bokk yaakaar li mën Euh, balaay boobu sax di nga gis ñu tawaat ñëw dem dem dem fekk ci waat Macky Sall parce que dafa am loo xam ne il faut nit ñi ñu bàyyi ko xel gis nga makki Sall Macky turam bi boo ko adabee soixante-dix la la jox mooy kun kun mooy mooy mooy mooy turu turu Macky bi gis nga Ousmane Sonko boo jëlee at partem nga jaxase ko cent soixante-six la la jox mooy fayakun Ousmane Sonko at Macky sàll kun la at fayakun

àndaat si wàllu seen dund ba mu yàgg ñu tàqale ko yooyu yëpp am na ci wàllu politique ba xam ne lu ci bëri luy feeñ ci maanaam politique bi di ngeen gis ay surprise yoo xam ne dana jaaxal àddina bi. Euh, ragal naa nag. ragal naa nag ne euh, ñibbisee mën naa leer ci li ma gisugum nii ndax moom it mbiram dafa commencé di leer ci samay bët buñ demee ba ci kanam. loolu yalla man na ko dogal te bu ko dogalee gis na ne surprise tamit dana am ci élection yi ndax gis na ku ñuy fal ku bees peul bo xam nañ ko fal wala tukulor wala nit ko xamne lak làkkat la ci côté Macky Sall ko fal ci yi du yag dara ci rendement bi di ñew li nga xamne ne nañ changé changement boobu ñuy fal ko ñuy fal noonu dana am leneen lu mu def ci jeexantal ci politique ci Sénégal ba lu bëri lu ñu yaakaaroon man na njuy dem ci beneen côté bu nit ñi yaakaartoon jërëjëf. alhamdulilah ñu ngi sant yàlla di wax ne euh, doomu aadama dafa bëri ñoo xam ne dañoo soxla ñaan ndax yàlla dafa bind ñetti junne tur jël benn junne bi def ko ci garab yi garab yi ngay gis yàlla dafa tënk ay tur yàlla moo tax garab goo gis rek yàlla dogal na ne. amna tour amna sante li sant gis la composé ak golen moom la composé nii ndax sidem, est xam ne la sant sidem garabu sidem sidem tour bi sidem la mais sante bi ñess la pourtant xam nga num sante sant lay. lay gis nga junne tour yalla def ci garab bi mo dal mag ñi daan jël garab di daan faj te bo composition bi ma composé bi. góor goo xam ne dafa tële tële ba nga xam ne moom mënatul dara si jabaram biteel bii moo baax ci moom kaas suba kaas midi kaas noonu mën na seeg jabaram lu tollu une heure du daal te bëri na lu koy def effet ci doomu aadama bi mooy bouillon yi nit ñi di rek effet la boo xam ne dina tax nit di gaaw di jot boppam ci wàllu sëy ku ma seet si yàlla mën naa dogal mu defal yow li yoo xam ne lii ngay gis graisse u mbëtt la waaw graisse mbëtt graisse gi bu fekkee nit woo na ma téléphone man am jafe-jafe fu mu nekk distance bi nekk ci fu sori at man fi ma nekk fii laay defee li may def bu rëy tey yow da ngaa mënta dox graisse gii laay utiliser at course gii moom wér ismu jalaal moo ko si dangay jóg dox sa soxla do te ñoo maa ngi yow duñ gisante biit walaay wa taalaay man naa toog fi ma toog man defal li ma lay defal ci geres gi nga nekk bitim réew ma toog fi ma toog composé ma ko envoyé la sama xuddaam fi nga toog nga jóg dem dox sa soxla mooy geres gi. geres mbott bi kii nit ku nga xam dafa am problème tànk mënta dox am naa secret boo xam ne maa ngi ko ciy bind te bu ma ko bindalee yàlla mën naa dogal li nga bëgg lépp mën na yàlla mën na su mën na ko def te surlu boobu moom la ñuy wax surlu boo xam ne dama koy composé si surlu murabba ma xaatimul kaafi xaatimul kaafi am mu murabaa moom laay jël boole ko alam nasara dama ciy taal nit yi fukki buntu ak juróom la fukki buntu ak juróom ci murabaa moom laay jël murabaa boobu laay jël boole ko benn alam nasara ak benn fatiha ak benn xaatimul suleymaan ndax xaatim suleymaan moom la yàlla yontu yàlla suleymaan jëloon daal tënk jinne yi moo ko jëlee nag naa ko booleeg maanaam 70 euh, mooy kun at fayakun 166 moo ko jaxasee ba jox la ko xaatim bii moom la ñuy wax xaatimu kaafi bëri na borom xam-xam yu bëri yoo xam ne dañuy ñëw sa di ko jël si man ma leen koy jox kii mooy faj aajoo nit jooni jooni ci nu mu gën a gaawee kooku yàlla may ne ko moo jógee ci foofu dañoo ne ci nawet sayaatin yi bëri kii bopp jaan bu ñuul la. bopp jaan bu ñuul la. dama koy dëb ba mu mokk bu dee yow nit day dafa am jafe-jafe ci wàllu wërgu yaramam. affaire sayatin japp ko bi la jël jaxasoog wasamaay fa taarix tarikh moko jëme debbu at sunguf suñu sunguf njigiir boo ko ci da ngay am am da ngay am manam jamm ci ci dundu ci lu bari lo xamne war na la waroon na la sonal yalla def jamm am ci yow buñ paré ci lolu ci li la jëm li daru tililah la moom laay boole at bejunu til ki ñi xam dañu war bëgg bay buñ jakkalok man Derbi bi jël jaxase ko surtout yusuf fepp foo yusuf dafa am rek damay dindi tour yusuf bi rek def ci sa tur jël bi jëm def ci boko songo paré nak da ngay jël li yóbbu ko ba fu sori yow nga nga sanni ko fofu ndax bo xolé euh luñu wax sitem ma ngi may lo xamné nako nit ñi di jël tamit sitem nga jël si 66 66 moy allahu nga jël garabu siddéem bol ko garab ñax ngi gis ngi gis bi boko jëlé nga composer ko nga bàyyi ba manam aljuma jot ci suba si balaa ñuy julli nga sangoo ba pare nga dem ba si foo xam ne fu sori la foo xam ne maanaam àll la nga sànni ko fa lépp lu newoon si yow si cat rek day dëñ waaw te boo xoolee bu baax léegi la xam-xam yom internet bëri mais boo xoolee ci jamono yi Soundiata Soundiata Keita xam nga ko le roi Soundiata Keita ku baax xam nga ko ah. Soundiata Keita xam nga ko le roi Soundiata Keita ah. si jamonoom pour nga doon campoor yi ci wàllu xam-xam dañ naan dajale borom xam-xam yépp ñu toog bu ñu toogee il faut nga wax juróom-ñaar fukki garab bu ci ne lan lay faj ñu mën a jëlee maanaam kaara gi ci ndigg li def ko ci bopp bi léegi la jamono jamonoy ku xëy rek sol mbaxana sol nangam mais pour nga doonoon camphor yi il faut nga mokkal maanaam juróom ñaar fukki garab yoo xam ne bu ci ne garab gu ne da kii nga door a doon camphori ci borom xam-xam borom xam-xam yi nekk ci jamono suñu jotekee te ñëpp dañ ko la nangul ne yow borom xam-xam nga moral maanaam bu jamono yooyu borom xam-xam yi dañ daan daan ràññee ñi ci ëpp doole ñu daan ràññee ñi la loolu nag li ko may mooy xam-xamu garab te garab dafa doon xam-xamu zulmaani ya te ñu ci bëri ñuy dox ci wàllu xam dañoo war a féetee si xam-xam zulmaani ak nuraani ya dafa am ñoo genre nit ñoo xam ne boo leen boo leen di ñaanal il faut nga defal leen xob ak reen ndax seen tabbeexa ci suuf la ne te xob ak reen garab la suuf la jóge loolu moo leen taal am na koo xam ne pour nga taal ko il faut nga dagg xaatim xaatim bii xaatim Suleymaan am na nit koo xam boo jàngal il faut nga dagg juróom-ñaar dagg d'accord ci juróom-benn fukki bunt ak ci biir ginnaaw jox la ko am na nit koo xam ne moom mbiram pour mu dox il faut nga dagg xaatim jox am na ci koo xam ne moom da koy dugal xalootu ndax euh, boo xoolee xalwatu tarixa la woon Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu anhu ci mujjanteelu dundam ci fanweeru tarixa ak ñett yum kii nekkoon na ci tarixa mi tarixa xalwatu tarixa xalwatu ñoom dañ daan dugg xalwatu nit koo xam ne mbiram dëgër il faut nga xal am na koo xam ne sunguf rek nga mën a jaar ak moom ndax day day laal ci wàllu sobe kooku da ngay tëbb ci xaat si sunguf yi sunguf sanjeen sunguf foofu sunguf mantambaare sunguf golleen jox ko mu sangu ndax dafay jëflanteek sobe kon sëriñ il faut ñu xam nit ñi lan lañ leen war a jox koo xam ne dafa nekk sobe boo ko joxee alxuraan tooñ nga ko moo tax nga gis naan sëriñ dem na ci yow moo tax ko wax dama la dem nga fu ne gisoo waaye ngi door a ñëw ci man sëriñ il faut ñuy xam nit ki ak dayoom ak tabiyaam ak roxaanam ak bidon ak wërsëgam pour mën a jëflante moom ñii ci nuuraani la ñuy dox ñii ci zulmaani wax moo tax loolu tax na man sawala bopp gis nga lii mooy ngay gis nii garab gii ma gisee nga gis ne yow nit ku war a tàkk nga tey say mbir dafa ànd ak zulmaani danaa la ko jox ki la ñuy wax téeñu ngeer juróom-ñaar fu ak juróom-ñaari basmala laa ci def mu la ko joxee nga sangu at koo mën a doon da ngay ubbeeku ma jox laa jox xaatim Suleymaan wala jox la alam jox la nga boo sangoo yàlla defal la jàmm am na si ñoo xam ne bu jàkkaarloo yow yow rek doo jël sax mu leen bindal da leen di wérta tur yàlla ndax yàlla mu wax ci alxuraan ne waskurullaha zikran kasiran tudd ma ma tudd la tudd ngay tudd yàlla tudd bu bëri bi da nga dem ma nit ki am na noo koy sikkiree tur yàlla rek da nga koy taal mu tàkk kon sëriñ dafa xam zahir xam baatim sëriñ dafa xam nit ki ci aalamu bu mu ne ins ak jins mu nga xam fréquence yi nit ki bu fekkee dafa am rab bu ne ci moom fréquence rab bi nga xam nan nga koy dévier yóbbu ko yëgle ko ci alamul insi yóbbu si jinn si yóbbu ci alamul insi alamul insi mooy doomu aadama alamul jinn si mooy jinne yi bu ko defee nag boo xoolee foofu rek di nga xam nit ki ban dayoo ngay am ci moom ban dayoo ngay mën a am ci xam-xam ci moom nga xam ne juróom-ñaari

Asbrahama doontul ko ñuy présenter lu boppu jasit bii boo bëggee samp nit sampul teggee ko rek na nga gis Asbrahama bu fekkee nag nit ki dafa bu bàyyi rek jarul boppu jasit fii ngay jaara moom mooy geenu kakataar waaw kii am na lu ma ciy boole ci wàllu xam-xam boo xam ne dama koy nëbbu buñ ko jëflante maa ngi nit ki di nga am tur ba ñëpp dañ la tudd bu ko defee nag yooyu ñooy yi may présenter pour tey li ci des beneen yoon bu ñu amaatee benn émission danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko développé maa ngi ñaan yàlla yàlla euh, yóbbu Sénégal ci jàmm di wax nag ne atu ñaari junne at ñeenti téeméer at ñeent fukk ak ñeent lañ ne mooy 1444 at moom lañ dugg at mu doy waar lay doonaat ci jamono ngeen di gis luy ñëw accident yi weer bii ñuy dugg dana bëri ku baax accident yi dana bëri waat accident yi na bëriwaat lool te accident yi di bëriwaat ku ci ne na nga góorgóorlu nga def ay sangat ci weer bi ñu jëm weer bi ñu dugg ku ci ne na def sangat te li may digal nit ñi ci weer bi ñu jëm te nga nga mën a mucc accident yi mooy boo xëyee suba boo xëyee rek nanga jël li nga xam ne moo feeñ ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah nga boole ko la 16641 bind ko wala nga visikkal ko nga dem boo demee di mu ci jàmm beneen mooy di nga gisaat fan yi nit ku siiw kuy génn àddina waaw ku siiw dana dana génn àddina di ngeen gisaat coow luy am bu rëy boo xam ne lu xaw a mel ni affaire viole maa njëkkoon tudd viol bi am fan yi ci homme politique bi wala nit ku siiw ki waxoon naa ko amaan na beneen buy siwaat ci beneen nit koo xam ne ku siiw la dina defar coow ci dëkk bi di ngeen gisaat nit koo xam ne dina am jafe feebaroon yàlla def jafe di am bañ koy ketal di ngeen gisaat nit koo xam ne dana songook nit jàppanteek moom ba jëflanteeg moom loo xam ne yoon dana ci am wàll beneen mooy accident yi dina ñëwaat bi nag gis naa côté nii autoroute nii jëm nii autoroute yi jëm nii jëm Touba jëm Dakar gis naa ci autoroute yi ay ay ay ay ay ay ay dese yu bëri ku ne na góorgóorlu génnee lu set ndox mu set gis naa loolu buñ ko defee na def réew mi jàmm beneen moom euh, jafe-jafe yi ngeen di gisaat ci wàllu euh, réew mi ci politique dina sulleekuwaat ci fan yi kenn koo xam ne dana am coow bu koy topp ci wax ju sew joo xam ne dana nekkoon ci benn parti politique ba mu yàgg mu génn ci parti bi dem liyee at boppam wala mu liyee ci beneen parti politique loolu dina defaat coow wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.